L'école de l'excellence, nous sommes les meilleurs. Somewhere score pass, somewhere score L'école de l'excellence, nous sommes les meilleurs. Somewhere score pass, somewhere score L'école de l'excellence. def. waa sama school. ah ëpp na. ay anglais laa fi dégg nag ay anglais ay english ñoom ñoom Washington DC daa ma ne loolu ngeen doon wax de. Mhm. Euh, mbokk internet yi xolo nuyu naa leen nag tey nag dañu ñëw nag ak yeneen acteur si li nga xamante ne moo di série sama school série bu bay tàq bi toj te xew ci jamono. mu mhm. leen di bàyyi rek ñu nuyoo mais ñoom dafa mel ni ay anglophone lañ ay kaana lañ nuyoo leen. nuyu suñu animatrice bu jànguma bii nii man de mon vrai nom c'est comme dans la série aussi je réponds au nom de Mbaye Mbaye aussi li may wax triple M li may wax aussi élève modèle ci série bi quoi. élève modèle. waaw maa ngi nuyu a gën a xam di ah, euh, Charles Lo xam nga. pour mon intégration je sais vais dire que ce n'était pas difficile quand même parce que je suis suis dugal mon sama et que je suis beaucoup en plus je suis depuis temps derrière

managers uh, from Richard Hall, women who work in integration in CDB. sama intégration ci séeréer bi moom ci baax statut rek ci sama benn xale bi ñu wax Paz Boss ak ci monsieur Thiam monsieur Thiam xam naa xam nañ ko su ma laa gisee statut bi après ma dem def casting comme ñëpp ma defee casting après ma toog deux semaines su ma monsieur Diop Diop la fi contacté ñu def présentation waa Wodé Gaye d'accord euh, gannaaw nag ba ngeen intégré série bi yéen ñaa ñëpp ma di leen doon laaj euh, seen personnage au fait lan la exactement comme yow nee nga ma étudiant sérieux nga lan nga doon incarné ci biir école bi wala bokk ci biir classe bi. mais sama rôle bu mu war a mënti doon changement rek war a yor comportement ñëpp xam nañ ni élève élève ñu jóge ko ba waroon nga xam ne kii yàlla simplement loolu lañ fa dénkaan ne loolu lañ fa war a et je pense que ni yomboon na trop ci ñun parce ay élèves la noonu la ñuy dox bu ñu tamit day gën a yomb ci ñun. d'accord ok. Euh, ma ñëw ci. <laughs> from rich town baamteel la baamteel la micro bi ndax nga gën a nekk à l'aise. ah déet moom nee na dafa sérieux kay yow ah lu tax. lu tax lu tax lu tax. la ko tax sérieux wul. non mais moom. moom xam la mooy problème am. il n'arrive pas à discerner. comme suma ma ci école bi. ak suma ma ci si biti quoi. ah kon yow ci biti sérieux woo mais c'est école de sérieux nga. duñ ko tuddee ñàkk sérieux sax c'est juste que si biti suma fi nekkee. bon damay def sama dund quoi. non ah, si la bokk mënu mënul ñàkk quoi mais na fexé ba suma ma ci école ñu bañ ma xolé bët bobu rek quoi. graw na. waaw. man man bon pour ngeen xam ko mais am na defe naa yoo xam ne moom moom mën a ñoom luñ ci woo. comme ñan. xam nañ seen bopp. comme ñan. waa ñan la ruubekat yi. ah ruubekat yi ñu gis nañ leen ñuy fecc ci classe bi mooy bër boobu noonu waaw am na ku ci def rasta am na koo xam ne tuñ dafa rose mara ak am na ñeneen si maa ngi leen ak takk karaw gi am na ku ci takk karaw waa. yow léegi yaa ngi ñëwoon woo leen lan moo tax. ñoo yomb dafa rose kay gis naa ko. waaw man kenn bi waaw. Hmm. waaw man ak ñoom la ñu jubóo parce man dëgg bëgguma injustice boo ko bëggee mu mel ne nag bi may ñëw dama leen fekk ngeen di def benn dialogue wala benn genre waxtaan la daal si anglais euh, yéen ay anglophone ngeen wala. waaw on peut dire ça dans la veille, nous sommes des étudiants, on a mon niveau classe à l'université de Dakar, nous sommes en licence 3, département anglais. Bon, c'est une nekk na si lépp loo xam ne ñu ci anglais bi daal. da ngeen di daj gars yi daal si anglais. dajul leen sax mais xam nga miraar yi mënuñu anglais mënuñu dara. tey moyen sax baaxul. amuñu moyen. di wax anglais. ñu saa tane nañu. ñu sàmmi seen moom moom jot ñu rek tax na yàlla baax na quoi. man moom man moom man moom si quoi man moom naturellement ni la mel. man la yoo xam ne c'est-à-dire bi. ci Europe lañ nekk te lu ñu mën nekk ci feneen tamit dañuy dégg suñu bëree fii tamit ñu ne xale lañ def ak gàpp ba voilà léegi dafa am ay ruubekat nee na ma borom kii bi la ak yooyu ñi nga xam ne ñoom gis nañ leen sax ci bande annonce yi léegi ñoom seen comportement ci biir classe bi lan la ruube la ak lan. waaw mais même dans la réalité c'est comme ça école boobu mënti dem dina am ruube maan yi. am jàngkat yi noonu la ko mos a

nga tamit xam nga koo xamul na mu koy def rek na mu la def moo tax c'est juste que man ak moom bokkuñu fuñ jógee mais bokk nañ fuñ fuñ dajaloo mooy université Cheikh Anta Diop. foofu lañ nekk ñu xamante mu doon sama gars franchement. wan ma jikko bu naaj jàpp ma ci li ma doon ci nit bu xeeb bi ma doon quoi. te mosuma xeeb benn yoon moom moo tax tamit. loolu rek ngay mën a gis quoi. d' accord léegi gannaaw Roubé Man yi dafa am group man kay léegi série bi comprendre naa ko dafa am group bu Roubé Man ak benn groupe boo xamante ni ñoom dañoo bëgg góor. Hmm. ak beneen groupe boo xam ne ñoom dañoo sérieux Moyen, moyen, agro yéen ak groupe ba bëgg jigéen ok yéen a ngi feeñ yéen a ngi feeñ yéen a ngi jàng waaye da ngeen mën a doxaan Ah oui, ça c'est vrai. Mais aussi, tamit, nga ba mel na fekk ngeen def anglais bëggoon naa loolu noonu ngeen doon wax ngeen wax internet ngeen doon laaj wax. Waaw moom ci moom la tàmbalee waaw moom fu ñu toog mooy fi dafay lu tax sénégalais tak man ko a sénégalais dañu xamul man dama yaakaar ne xamul fi feebar bi tax moom moo tax on sait pas mais def verser dans le suuf maanaam si sa say carrément lan mooy feebar bi et que feebar fan la mën di toll dinañ comprendre te dinañ jël seen mesure barrière yi nga xam ne moom la war a mbóot yi ak ñeneen ñi nga xam ne ñooy autorité yi ñu ko digal ok d' accord nuru na dina ci yéen ay élèves yu baax ngeen ndax yéen a ngi toog di wax ci li nga xamante ni moo di mbas mi fi gane si àdduna mais bëggoon naa tamit ngeen ñëw ci série bi bëgg naa série bi daal ngeen ñëw si oom Saalum kan la nekk papa. souvent ça neex kala la nekk papaam. mais da nga bëgg sa seetaan série bi noonu. waaw est ce que doo xaar ba série bi ñëw. Saana kala la papa mais yow di ma wax. Saana kala sa loo. banda annonce rek la gis. waaw Saana kala do wax dem borom kii bi. defe wa kay. gis na si tamit gis na si tamit tonno ta fa tonno ta fa kala si jur ci ñaar. no jurum kala jur berbaring ah. mela dom de mela wala borom rasta wow kay ok d'accord kan mo ci Aïcha Aisha, ci Aïcha mais ça ben xaram ci ngeen rek ko dina xaram ci ngeen di dëgg lu muy def lu muy def ma lool émission bi mi ngi yegg si fi ñu koy ndar keppe dama bëggoon rek ngeen ñëw ci rapidement rek euh, le fait que ngeen di jouer série ak lan ngeen di wax seen moroomu jeunes yi nga xamante ne ñoom ñu ngi toog di rêver jouer série série série dañu bëgg a jouer te xamuñ ne yéen ñii di jouer aussi da ngeen làkk leneen si ginnaaw su dul liggéey di jàng. tamit ni waroon nekk ci benn branche nag mooy ci ni lantine bi ko mën a ma yàlla baal mais bis boo bis boo xam ne tey jii nii réussir ci côté boobu noonu mooy mooy SMS à l' émission tu vois mais da nga multidimension xam nga tey nga nekk fii suba nga nekk rek comme man damay def étudiant waaw man damay def dama nekk naa mu ngi en même temps maa ngi def man maa ngi ci série yi lu ma yàlla maa ngi jël àdduna bi noonu lañ koy noonu dañ koy mën a waaw nekk ci benn affaire rek visé wu ci sa du ma ne baaxul quoi mais Jay, from Rich Town, ñëwal rapidement rek si lan ngay conseiller sa morom jeunes yi nga xamante ni ñoom jog nañ pour ne dañuy dem si série te xamuñu ni di nekk série leen rek def ko métier dafa am leneen lu ngeen di def soit yéen wala yéen a nekk di dóor waar feneen. ñu jàng moom moom moo moom moo ñu fi andi. moo ñu jëlee suñu dëkk. andi ñu fi ñu jàng peut être lii passion la rek. ñoom ñoo ñoom ñoo def ko wala ak jàng. même suñu demoon rek ba nekk ay star ñu di joué ci kaw. teewul soit dañuy nekk jàngalekat dem jàng ji. pour jàngal suñu rakk yi nga xam ne moom bu ñu nekk star rek bàyyi suñu métier. parce que loolu moo ñu fi andi. diplôme mu bëgg. am ko fekk. mën lépp bu defee euh, suñu rakk yi naan. ñu léegi mosal leen ma tuuti ci série bi comme que yéen yéenay intellectuel u série bi mosal leen ma tuuti benn message bu ngeen di lancer vite rek euh, ñu tàggatoo internet yi.

<laughs> d'accord kon xam naa ne mbokk internet yi wax na waxloo naa leen ba sonn mënuñoo fexe ba wax xam nga ñoom ñoom nag dañoo nekk élèves yi nga xam ne étudiants yi nga xam ne dañoo sérieux ci biir classe bi xam naa sérieux boobu moo leen topp ba nga xam ne nangoo ñu ma wax dara waaye ñu dem ak ñeneen acteur ñoom dinañu expliquer lan la sama school di di di di traité daal. di leen di i actrices yu sama school. L'école de l'excellence, nous sommes les meilleurs.